yan na leen yonent bi salawaatullahi wasalaam fay waaye bu ñu waxee yan na yonent bi fay mooy ne yonent bi mooy buntu la yàlla rek ku jaarul ci moom du àgg ci yàlla te yaakaar naa ne weer wi weeram la lépp loo xam ne jàng nañ ko ci yawaaqit ci ay ñaan yuñ fi ñaan yàlla nangul ñu ko tabaarakallaahu ñu ngi sant mbooloo mi yëpp di leen gërëm mbokk dëkkandoor yi yéen ñëpp euh, sunu sëriñ bi Seydi Mouhamed Ndaw nee na nuyu na leen sant leen gërëm leen góor ak jigéen mag ak ndaw képp koo xam ne teew na fi euh, tey nag xëy na dafa war a alaa mi ndax dégg ngeen ni fi yawaaqit bi jóge nga xam ne yéeme na lool waaye xam na lu des nag bu kenn dam sunu sëriñ moom it ba tey mooy Mouhamed Diouf waaw Mouhamed Diouf moom sàmba demoon moo dellu si rek buñ ko dégloo rek danañ dégg incha allah mu wax ñu ci rasulullahi kanay rasulullahi waaye li ko sunu sëriñ Mouhamed Ndaw jàngal ak sunu sëriñ Mouhamed Diouf mu tari ko xëy na taalibe bu tari si la rek waaye nekkul dara waaw te taalibe moom bu tari si kanam sëriñam tabaarakallaahu day du xam lu muy wax waa ndax day jaxasoo ngeen ñaanal ko yàlla mu wax loo xam ne dana mën a sëriñ bi dana ko mën a gërëm tabaarakallaahu kon loolu lañ santoon ne nañ ko jàllale ñu ngi gërëm ñëpp tey ziyaare ñëpp alhamdulilah ñu jox ko mu dugg alhamdulilahi alladi manna ala ibadihi salihin wa xassasa baadahum عرفانا بذاته وأسمائه وصفاته صلواته وسلامه على من قال من قال لا إله إلا الله مخلصا دخل الجنة وسيدنا محمد صلى الله عليه وسلم أيها الحاضرون والحاضرات واعلموا أن تلاميذكم محمد جوف قد جلس أمامكم تذكيرا لقوله تعالى فذكر فإن الذكرى تنفع المؤمنون لذا نحييكم بتهية الودية الإسلامية الربانية ألا وهي السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. mbokk yi nga xam ne yéen a toog ci jotaay bi ñu leen di nuyu di leen ziyaara di jiital ci nuyoo bi Maulana Mamadou Diouf mi nga xam ne lépp lu ñu xam ba di ko wax moom moo ko def ci ñun tabarakallahu ñu koy yeesal ak njébbal ci moom xam ne moom yar neexul waaw souvent ñu dugg ci ay tuuxi duuna mu jéggal ñu xam ne xale moom dafa matul rekk <coughs> wante ñu ngi koy mastawu ci coono boobu waaye di jagleel nuyoo a Cheikh Mouhamad Ndaw mi nga xam ne moo yàlla moom la yàlla teg ci jotaay bii mu nekk koo xam ne ku yàlla baaxal la ku bëgg Mawlana di juuf la te ku bëgg Maolana Maam Modou Diouf ñun den lay bëgg kon sëñ bi sopp nañ la ngir bëgg bi nga bëgg sëriñ bi gis nañ fi sëriñ Modou Ka ak sëriñ Ndiaye mhm. xam naa moom dina yëngal ci kanam tuuti mhm. wante lu bàyyi laay wax rek la wax ñëw ñu xam-xam mais dañu fay ñëw ngir tarisi ci kanamu Mouhamed Ndaw ndaxte wax dëgg yàlla yàgg nañoo taxawu ci lépp kon sant yàlla bu baax a baax a baax a baax kon sëriñ bi donte sax jotaay bi am na ay boromi xam-xam ñoo xam ne ñoom ñoo ñu raw fiif waaye nag misaal ba sëriñ ba doon joxe rek bu fekkente ne ay chauffeur yu bari dañoo bokk oto ñëpp mënuñoo dawalandoo faw rek ñu jiital kenn mu dawal yàlla nattoo ma ñu may dawal loo mm-hmm. wante nag su ma signalé gauche jaar droite ngeen ne ma gauche la incha allahu taala. yow kay doo jaar. rasulullahi sallallahu alayhi wa sallam. <laughs> wa ma yantiqu ah. anil hawa Seif Ndiaye ah, bi sallallahu alayhi wa sallam. dafa nekk yonent boo xam ne. <coughs> ñëpp werante wuñ ne lu yàlla bind rek moom moo ci gën. Ah, ليكوي فيلم ديال في جيبي السنغال يومبنا باسكو بو خولي سوني ماغني كو نيك بو مو نانه لير تي مبالكا ليرو رسول الله با ماندي بوم سيجي دافا ام لوم كو واخ ني كوماسي تي مولانا الحاج عمر داو اي واي من حقيقة المصطفى الهادي محمدنا نور بديع من الباقي بلا عدل من دق دق مصطفى دق دق مصطفى مم مصطفى موي كيغا خامني الهادي مم مو نيو جندي با تخ نيو خام شريعه خام حقيقته ايوا يغونا دافا ام نياري خام خام خام خام الشريعه موم لاي نيكي سوم باري نك دا دوجي خام خام حقيقه واو لا نغلا ان شاء الله تعالى موي الهادي نك مو جندي ba ñu mun a xam nan la ñuy toppee suñu diine ba mu wér kooku Mawlaana Cheikh Ahmad Ndaw nee na nuurun badiun leer la bu yéeme ne ko ndaw leer gi fu mu jógee mu ne minal baaqi bila adam mu ngi bàyyeekoo ci allahu subhanahu wa taala ah leer googu dafa bàyyeekoo ci hadratul qudsi direct ñëw dóor ci biir xolu sayidina muhammad sallallahu alayhi wa غيس فلمن هو الصادق المصدوق لا عبد مثله هو خاتم المختار من رسل ربي خمغا مقام الصادق اك مصدوق بوك ليك ليك نيت كي توك مقام الصادق صادق موي كيغا خامني دافا دغ اسم فاعل لا تي نيغا خامني دا نجان نحو موي اجي دغ موي كو خامني خامو تياخات كوك موي صادق مصدوق نك موي كيغا خامني دافا دغ با فار ني دغال كو léeg-léeg nag souvent ñaari maqaama yi lu ñuy daje ci nit bëriwul léeg-léeg nit ki day dëggu waaye kenn du ko dëggal léeg-léeg nag nit ki dëgg ba pare ñu dëggal ko rasulullahi moom dafa boole ñaari maqaama yëpp muy sadiqul masduq Mawlana Cheikh man daf ne laa abda mithlahu amul benn jàmm boo xam ne mel na ni rasulullahi salaa sallam wa sadiqul masduqi laa abda mithlahu wa xaatimul muxtaari min rusira ah ñi nga xam ne dañ leen a tànn xanaa xamoo yonent yi bëri nañ de cent vingt quatre mille yonent moom cent vingt quatre mille yonent ñoom ñoo sokkal waaye ñoom dafa mel ni dañ doon kursu rasulullah yi mu ngi ci biir cent vingt quatre mille yonent yi dafa mel ni dañ doon kursu rasulullah yi bokk ci cent treize yi nga xam ne dañoo génn ci premier tour ñi nga xam ne génn nañ seen pool boobu pour ñi nga xam ne dañuy seydaan match bokk ci trois trois cent treize yooyu waye ba tey rasulullah bokku na ci ñu génnaat ci 313 ñëw ci 25 ñëw ci alquran amna 25 yonent yoo xam alquran tudd na leen. rasulullah yi bokk ci. ba tey mu génnaat ci biir 25 ñëw ci biir ulul azmi wa iz axadna min annabiyina misaqahum minka wa minka wa min nuux wa ibrahima wa muusa wa isa bnu maryam wa axadna minhum mithaqan galida suratul ahzab aya 7 allahu subhanahu wa taala moom moo ko wax ñooñ ñooy ulul azmi ñooñ ñoo génn ci biir vingt cinq yi ñëw ci alquran mooy yonente bi alayhi salaatu wasalaam nu ibrahim moussa ak isa bnu mariam waaye ci biir juróom ñooñu yonente bi alayhi salaatu wasalaam génnaat ci génn ñëpp kon ñun kan lañ am mooy kan xayrul xalq ki yàlla bind yonente bi alayhi salaatu wasalaam moo ko gën لولو واخو مولانا الحاج عمر دوله ما نيو سي شيخ سيدي حاج مالك خم نغ لو وخلق الاخلاق بعض الانبياء لظهوره مقدمه فاعلم ولا تنمي في عالم الملك والارواح تابعه للروح والجسم هذا غايه الكرم صلى الله عليه وسلم maam suñu maam alxaaji malik loolu la wax rasulullahi mu ne bind buñ bind mbindéef yi ak yónni buñ yónni yónent yi du dara dañoo ñëwoon ngir publicité na am na kuy ñëw kooku mooy rasulullahi xam nga xamaa jigéen ñi ñoo koy gën di seetaan ay série série yi ñuy seetaan ci tele yi balaa ñu koy teg dañuy teg bande annonce bi hmm, ko ne mardi lay am vingt heures trente hmm. bande annonce boobu ñoom mbindéef yi ak yónent yi yëpp loolu moo leen indi woon déggoo Isa ba muy publicité yonent bi te yati min baad ismuhu ahmad ah, dina ñëw sama ginnaaw bu ñëwee ahmad lay tudd waaye hmm. gaa yi xaqiqa yi maa ngi ñëw de hmm, ahmad ak muhammad bokkul wante nag xaaral ma ñëw bu sharia bi bu ca kanam a kanam incha allah dañuy jéem a roy bi ah hmm, muhammad ndaw incha allah ah mu ne dañoo ñëwoon ngir publicité ne am na kuy ñëw kooku bu ñëwee rasulullahi lay doon من في عالم الملك عالم الملك الاخر ها عالم الملك فوف والارواح تابعه روح يب داني توف روح يونتي عليه الصلاه والسلام ها آه، مام لا في عالم الملك والارواح تابعه للروح والجسم هذا غايه الكرم داني توف في روح اك جم <coughs> ما دون لول داينا تدين يونتي عليه الصلاه والسلام ruux yi yëpp ci biir ruuxam ba lañ ci ki nga xam ne mooy maam borom Tuuba say hmm? ay dégg muy naan samsu sumu si asoro ayrul ane ala murid yi tabarakallah ah da ngay dégg sëñ bi tabaarakalla <laughs> macha allah yàlla yàlla barkeel samsu sumuusi sëñ Tuuba hmm? nee ruusi xayril anisi lil awliya ah. ah tey fi toj de nee na samsu sumuusi jant jant yi hmm. jant dañoo am lu ñu tuddee majaasul mursal mm, da ngay jël dara abbu ko ah waaw eh? waaye mu jël jant niroole ko yonent bi alayhi salaatu wasalaam rasu ruusi njiiti njiiti xayrul anisil tabaarakallah ki ki nga xam ne xayrul anis moo ngeen ji wéttali lil awliya lii wala ne Sëriñ Tuuba ponkal la xam na ne bu fekkente ne charia ci ngay séparé diggante waliyu ak nabiyu waaye bu dee xaqiqa la waliyu ak nabiyu amul séparation déggoo yàlla ala inna awliya allahu la xawfun alayhim wala hum yaxzanun waaw waliyu lu muy firi mooy ku méngoo yàlla yonent méngoowut yàlla ñoom ñëpp dañoo méngoo yàlla moo tax sëñ Tuba ala yàlla suñu borom ne ala inna awliya allahu la xawfun alayhim wala hum yaxzanun ki nga xam ne waliyu la te mu dëgg ci moom amatul lu muy ragal gisoo sëriñ Tuba ñu boole ko gaynde mu génn ci ah koku amatul lu muy ragal te ku ragal yàlla lépp ragal la mais ragal yàlla mo jafe ma ngi ci ñëw hmm nga deg Baye Niass mais makaarimu ahli juudi fi ka jamma laqad ast askha an-nas ma zilt akrama ha Baye Niass neena li nga xamne moy tedd nga bi nga xamne mo nekk ci nekk ci aduna ñu nan leen dañu tedd tedd nga yooyu ak teraanga yooyu ak tabe nga yooyu yëpp dafa daje ci yonent bi sallallahu alayhi wa sallam mu ne yow yonent bi alayhi salaatu wa salaam da ngay dund di tabe ba faatu di tabe loolu mooy yonent bi alayhi salaatu wa salaam dégg ko nga nga dégg wax ba mu nettali moom bàyyi na ne muhammadun basharun laa kal bashar bal huwa kal yaquutu bayna al hajar mu ne muhammad yonent bi alayhi salaatu wa salaam nit la waaye melut nit ñi

ولا اقفي اقن يا قاقي اما نكيف كو خامن داكور ناني سو غيسه رسول الله لا سو ناي رسول الله لا سو دوخي رسول الله لا سو ديمي رسول الله دفال ني نيو فاقق اقل ولا طاق ولا اقفي اقن يا قاقي من يغون رسول الله صلوات الله عليه لب لو ديف هو الله سر الوجود يوم قال من رسول الله صلوات الله عليه سوتال الله سلخ متالله رسول الله هو سر الله سر الوجود يوم قال رسول الله بو خولي جسم مملك وسير الله يسر الوجود يا كال الجن خرا خمو بو فاتو رسول الله لا ني روتي تي الله يسر الوجود يا كال الجن رسول الله صلى الله عليه وسلم sirrul ilaahi boobu tabaarakallaa buñ ko roccee ci yow loolu mooy tax sa yaram ne këk dootoo mën a yëngatu wa sirrullaahi surul wujudi ñal ma kaaleen gën déggool mouhamadul busayri mu ne yaa akramal xalqi maali man aluuzu bihi siwaaka inda xuluuli lhaadisi lamim wa sirrullaahi surul wujudi ñal ma kaaleen gën ene walan yadiqa rasulallaahi jaauka bihi isa alkarimu taxalla bismi muntaqim wa sirrullaahi surul wujudi جودي جل كالم فإن من جودك الدنيا وضرتها ومن علومك علم اللوح والقلم وسر الله سر جودي جل كالم محمد البصيري نينا يومي خمنا يا جنة تجمين في يومي خمنا يا رسول الله وسر الله سر جودي جل كالم مالي من ألوز به سواك أمرتكم يويرك اليوم وسر الله سر وجودي جل كالم عند حلول الحادث ليس العميمي وسر لا يسر وجودي جاك لغن بندم بيوم القيام بمبري تانغ بتانغ من فوف رسول الله يولا يكار وسر الله يسر وجودي جمع لغن أنا ولا يضيق رسول الله جاو بي وسر الله يسر وجودي جمع لغن من خمنا بيوم القيامة دو خدت درجة من رسول من وسر الله يسر وجودي جمع لغن من فإن من جودك الدنيا وضرتها ومن علومك علم اللوح والقلم وسر الله يسر وجودي جلوك يا للغن يقن سخم قم خم لن بندتي لوح المحفوظ بيغا خم لن ينكو بندتي قلم المعنى وسر الله يسر وجودي جلوك يا للغن محمد سيد الكونين والثقلين والفريقين من عرب ومن عجم نبينا آمر النهي فلا أهدو وسر الله يسر وجودي جلوك يا للغن نبينا آمن الناي فلا آد أبر في قول الأمن ولا الله سر وجودي جواك يا والحبيب الذي ترجى شفاعته لكل هول من الأهوال مقتهل وسر الله سر وجودي جواك يا أنا محمد سيد الكونين رسول الله موسى نياري نكتف وسر الله سر وجودي جواك يا للغن لبلو نك موينتك جنة موي نياري نكتف رسول الله موسى سنسنغ وسر الله سر وجودي njal wakal wala ma ne la ñaari nekk ci kaw asamaan ak ñi nekk ci kaw suuf ñëpp rasulullahi mooy seen sax وسر الله سر وجودي njal wakal wasaqalayni min urbin wa min ajamin ñi nga xam ne mooy nit ak jinne rasulullahi mooy seen sax وسر الله سر وجودي njal wakal min urbin wa min ajamin képp koo xam ne arab la ak képp koo xam ne ajam la rasulullahi moo la عرب موي لا اولوف خام عرب يي ني عربي لول ماي عرب عجم موي كودول عرب وسر الله يسر وجودي جلوك للغن ودعم منكم محمد سيد الكونين والثقلين والفريقين من عرب ومن عجم نبينا أمير سلوح البعاث من سبه جلوك للغن نبينا أمير الناي فلا آد أبر في قول لا منه ولا نامي أمير سلوح البعاث من سبه جلوك للغن رسول الله موم موي دقلة موي ترى لوم دقلة دقلة لوم دقلة ودودك أمير سلوح البعاث من سبون المكال هو الحبيب الذي ترجى شفاعته لكل هول من الأهوال مقتي أغسما بحيث من سبون مكال من سب بيغا خمنا بو يوم القيامة بو نيبنا نفسي نفسي بو بوبا رسول الله أغسما بحيث من سبون مكال سيد محمد داو yëgoon ne rasulullahi bu yomal qiyaamee. sallallahu alayhi wa sallam. ñëpp dañuy daw ci xeet yi naan dañuy xettaliku ci yàlla wàccee jant bi ba ci bopp nit ñi yuri di bax ñëpp di xettali ko ci xeet yi waaye kuñ dem yonenti buñ dem mu ne nafsi nafsi waaye rasulullah yi rek mooy jóg intervenir asliman besa min sabo jana kaale rasulullah yi mooy jóg intervenir laa wax afisli wan bi ay saminu sabo njol makka yaa leen gën moo ñëw taxaw ci kanamu allahu subhanahu wa taala afisli wan bi ay saminu sabo njol makka yaa leen gën nuy day si jot yàlla ne ko sal tuta wasfa tu shafa bi ay saminu sabo njol makka yaa leen gën yàlla ne ko tey fii amul si jot laajal ñu jox la to ramu ñu ramu loola afisli wan moo tax muhammadul busene kayfa أحيك الأنبياء يا سماء مطاولا هزما أفضل الباس من صبون المكان كيف ترقى لك ليجي أفضل الباس من صبون المكان إياك مقام بين تخو يا رسول الله إنك لفن ديجي أفضل الباس من صبون المكان مقام بين خمن ما طوالت هسما أفضل الباس من صبون المكان أسمان سيمون تيم نمني تيم نون لرسول الله أفضل الباس من صبون بعد المكالم إيه محمد حسين يا نسول كالظهر في طرف والبدر في شرف والبهر في كرم والدهر في همم أظل البيت من سبوج المكالم يا آه رسول الله من كالظهر في طرف دفمني فلور تبت أظل البيت من سبوج المكالم والبدر في شرف دفمني وير بدر تتدنى وير بدر ما وير بأم كنزو أظل البيت من سبوج المكالم ويلير رفت نايس نون رسول الله تدي أظل البيت من nee na wal baari fii karamin rasulullah gis nga géej ñu mu bëree teraanga xam nga xam ne mool yi dañuy dem napp indi maanaam jaay jaaykatu jën yi jaaykatu jën yi jox maanaam jéeg ji ñu indi ko ci kër gi ñëpp mm-hmm. jëfandikoo ci jën ji gis nga géej ñu mu teddee te bëree ko teranga rasulullah noonu la bëree teraanga afirdal basamin sabo dal makalen gën wa daari fii himami rasulullah dafa mel ni jamono ci itey doomu aadama afirdal basamin sabo dal makalen gën mënul jeexal yite yi yite yi kenn mënu koo jeexal. affaire baasamin sa boo njël ma kaay leen gën. bu dee jamono bu teye yaa ngi soxla téléphone boo xam ne tuus la bu subaa yaa ngi soxla beneen téléphone écran bu gannaaw subaa yaa ngi soxla oto bu gannaaw waati subaa yaa ngi soxla avion. affaire baasamin sa boo njël ma kaay leen gën. waaye boo amee avion sax du teye sa yite yi du jeexal. affaire baasamin sa boo njël ma kaay leen gën. jamono mu bëree yite mu yar suulu laay noonu la amee yite. wasirulaay suru juudi njël ma kaay leen ah Mouhamad Faye wa sirru laahi sirru wujudi jol makka yaa leen gën. Ah, bu ko defee nag ñu ñëw ci gàddaay gi nag. wa sirru laahi sirru wujudi ngi ci gàddaay ka rasulillahi mu ngi ba war a ma ko makka dem Medina. wa sirru laahi sirru wujudi mu ngi war a bàyyee ko makka dem Medina. wa sirru laahi sirru wujudi a سر وجودي المكان نعم القد أمسينا وقت سراقة واستهوته سافل جراء وسر لا يسر وجودي المكان نعم القد وقت فاسره سراقة فاستهوته وفي الأرض سافل جرداء وسر لا يسر وجودي المكان نعم القد ثم مناداه من بعد ما سيمت الغصف وقد ينجد الغريق النداء وسر لا يسر وجودي المكان القد نانا رسول الله صلى salawaatullahi alayhi dafa jógee ko Makka ngir gàddaay dem Medina. wa sirulahi sir wujudi jama kaalel ge. waaye saaba ko nag. wa a ànd ak Aboubacar dem Medina. wa mu ne ko xaar ma amaana yow Aboubacar nga am àndandoor. wa sirulahi sir wujudi jama kaalel ge. ba ma sama borom jox ma ndigal man ma ànd ak yow Aboubacar. Bakar wasirul aysir wujudi ñal ma kaalen ko yàlla joxe ndigal Abu Bakar Siddiq dafa jooy wasirul aysir wujudi ñal ma kaalen ko Aïssa ñëw ci Abu Bakar ne ko yow lan ngay jooy lan ngay jooy wasirul aysir wujudi ñal ma kaalen ko ko dama bég ndax ku ànd ak Rasulullahi lool mbégte la te wéy la budul fay wasirul aysir wujudi ñal ma kaalen ko yàlla suñu borom boole mag xayrul xalqi ma war ànd ak moom gàddaay dem Medina lool lay jooy misru wujudi ñal ma kaalel ga Aïcha nee na man musuma gis koo xam ne dina jooy ci mbégte ba ma gis sama papa muy jooy ngir wa sirru lay sirru wujudi ñal ma kaalel ga waaye nag Aboubacar ak Mouhamad salawatullahi alayhi war a gàddaay nag dem Medina wa rasul wa sirru lay sirru wujudi ñal ma kaalel ga ñëw ba ci benn xaar bu ñu wax xaaru saw ñoom ñu làqatu fa wa sirru lay sirru wujudi ñal ma kaalel ga parce que yéen féeri Makka yi dañ leen doon wër ngir faagaagal leen سر الله سر وجوده جل مكال الجل بنيا وغار سو بين جربن ما يولند هو سر الله سر وجوده جل مكال الجل كلند بين فتح نيو نن سي بونتو باخمي هو سر الله سر وجوده جل مكال الجل دي رسول الله اك ابو بكر با سي بونتو باخمي هو سر الله سر وجوده جل مكال الجل كو واخو نه داي دين لند بي رسول ابو جهل فل كنكو فوزل فل هو سر الله سر وجوده جل مكال الجل jargoñ jargoñ bii nga xam ne bi mu fii lënd boobu Mouhamad juddoogu wa sir laay sir wujudi jal wakaalel gën gis nga loolu bu mu amee wa sir laay sir wujudi jal wakaalel gën tabarakallahu abou jahlin fël yéeféer ba mu daali fële wa sir laay sir wujudi jal wakaalel gën aboubacar nee na gis nga yéeféer yi xooloon suñu tànk sax gis ñu Makka wasirulahi suru judi jalma kaare ngeen fu Aboubacar Siddiq ak rasulilahi fi ñu jaar wasirulahi suru judi jalma kaare ngeen léegi nag am na koo xam ne dafa jógee ko woon Medina pour ñëw Makka wasirulahi suru judi jalma kaare ngeen boobu nag seen na rasulilahi salawatullahi alayhi ak Aboubacar ñu dem Medina wasirulahi suru judi jalma kaare ngeen ñëw mu ne leen ah kama seen daal ñaar ñële ñu jëm Medina dafa mel ni seen ñaari waaye la juudi njal makke yaa leen gën yéefari makke yi daal di doon képp koo xam ne nii nag indi na bopp rasulullahi rek o rasulullahi sir wujuudi njal makke yaa leen gën koo xam ne indi na bopp rasulullahi lépp lu ñuy yar nga am ci o rasulullahi sir wujuudi njal makke yaa la ñuy da ci am téeméer o rasulullahi sir wujuudi njal makke da nga ci am la ñuy da ci am téeméer o siru lay siru juudi njal ma kaalen la ñuy yar dañ ci am téeméer booy o siru lay siru ku nekk di fot foti bugg jaar yoon boobu waa ji tegtal leen o siru lay siru juudi njal muus bu nekk si seen biir ku xaar leen kii di leen di nax de. wasirul lay sir wujudi ñal ma kiyaalil. yoon bam leen wax yoon boobu du yoonu Medina. wasirul lay sir wujudi ñal ma kiyaalil. su raqatalal gaa yi ba gaa yi dal mu war fasam ak jaasi wuti rasul. wasirul lay sir wujudi ñal ma kiyaalil. daf leen a bëgg a dalal pour jël cadeau bi nga xam ne teg nañ ko. wasirul lay sir wujudi ñal ma kiyaalil. xam naa su raqa ab paab la rek nag. wasirul lay sir wujudi ñal ma kiyaalil. naan ci biir naan ci mu ngay محمد رسول الله هنا وسر الله سر وجودي جلمك يا لله محمد الحسين وقف إسره سراقته سهواه فسهوته وفي الأرض سافن جرداو وسر الله سر وجودي جلمك يا مناداه وناداه بعدما سمت الخسفة وقد ينجد الغريق النداء وسر الله وجودي جل يا لله قدمنا بجك أبو بكر أيون النبي عليه الصلاة والسلام وسر الله وجودي جل يا لله ngeen ak Aboubacar gëstu na ba gëstu naa xamuñ ñëw yor jaasi wasiru laay suru wujudi ñal ma kaali war ma sam waay li ma la wax léegi ala inna awliya allahu la xawfun alayhim wala hum yahzanun abdoulaye Mbaye Samine Sabo ñal ma kaalel ngeen. rasulullah ne ko na yor jaasi lu mu mënta man ragalu ko. abdoulaye Mbaye Samine Sabo ñal ma kaalel ngeen. ko toogal rek bul tiit wala Aboubacar ne ko toogal rek bul tiit kii bu ñëwee lu indi fekk. abdoulaye Mbaye Samine Sabo ñal ma kaalel ngeen. Suraaqa ñëwee ko jege si yàlla yónni Jibril ne ko waxal Muhammad ne ko digal naa suuf lu mu wax mu def. abdoulaye Mbaye Samine Sabo ñal ma kaalel ngeen. Suraaqa rasulullahi ne suuf hee teel ma tànk fas boobu. abdoulaye Basse mi ne sa bopp njël ma teel. suuf si tee tànk fas bi fas bi commencé dugg ci biir suuf si. abdoulaye Basse mi ne sa bopp njël ma teel. bu ci kanam Suraaqa tiit ne rasulullahi baal ma waay bopp. rasulullahi sunu wujudi njël ma teel. mu ne boobu Mouhamad la ko doon wax ndax gëmagut rasulullahi. rasulullahi sunu wujudi njël ma teel. rasulullahi lu muy firi mooy yonent yàlla waaye gëmu ko. rasulullahi sunu جودي جمك يا ليل محمد بالموايقر يلا وسر الله يسر وجودي جمك يا ليل بلولو أمي رسول الله دلد باي سراقة وسر الله يسر وجودي جمك يا ليل مبال سراقة سراقة وردل مكة وسر الله يسر وجودي جمك يا ليل أقول السراقة دلد بتيون برك مخالات كدو بنتك من اسكدو مدلو وسر الله يسر وجودي جمك يا ليل وسر الله يسر وجودي joodi njal ma kaale bu jubaat ko rasulullahi ne ee suuf jàppal ma tànk fas boobu wasirullahi siru wujuudi njal ma kaale gen suuf si commencé wan fas bi bobotu oomu fas bi dugg wasirullahi siru wujuudi njal ma kaale gen suraqa ne Muhammad baal ma waay هو سر الله سر وجودي جاك للجميع عليه الصلاة والسلام بالكو سراق ورد الوانما هو سر الله سر وجودي جاك للجميع بمو ياك مو خلاتات كدو بنيتك هو سر الله سر وجودي جاك للجميع كدو بفهم أو كواي هو سر الله سر وجودي جاك للجميع ولم نديدك بف رسول الله هو سر الله سر وجودي جاك للجميع رسول الله رسول الله إيه سوف تل متانكو فاسبوبو هو سر الله سر وجودي dal ma kayaalil ngeen commencé wan tànk fas bi ba biiru fas bi commencé la wa sir la isr wujudi dal ma kayaalil ngeen wa sir la isr wujudi dal ma kayaalil ngeen eh, bal ma waay bal ma wa sir la isr wujudi dal ma kayaalil ngeen ko waxee yonent bi alayhi salaatu wa salaam bii moom dama lay baal rek nga tuub wa sir la isr wujudi dal ma kayaalil ngeen ko deful ma bàyyi la suuf si wan la wa sir la isr wujudi dal ma kayaalil ubbil ma amee siru wujudi njal makkaale gi ñu wat ko ndel mu siru wujudi njal makkaale gi abu jalil di ko mbalak naan ko eh jabet wa sirullah siru wujudi njal makkaale gi ma ngi jara ñaan ga wa oh, sirullah siru wujudi njal makkaale subhanallazi asra wa oh, sirullah siru wujudi njal makkaale gi ليلا من المسجد الحرام وسر الله سر وجودي جمك من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى وسر الله سر وجودي جمك يا للقلب رسول الله ورجوك كوتشوف وسر العيسر وجودي جل مكيال القلب مسجد الأقصى وسر العيسر وجودي جل مكيال القلب وسر العيسر وجودي جل مكيال القلب وسر العيسر وجودي جل مكيال القلب وسر العيسر وجودي جل مكيال القلب مسجد الأقصى وسر العيسر وجودي جل مكيال القلب masjidul aqsa doora mën a gis yonent yi wasirulahi sirru juhdi ñalwakal déggoo ni Cheikh Mouhamed Ndaw mi mën na gis yonent wasirulahi sirru juhdi ñalwakal mane may yàlla yi dañoo wute wasirulahi sirru juhdi ñalmakal ngeen wute nu ñu ñu wute wasirulahi sirru juhdi ñalmakal ngeen xees kii ñuul kii weex wasirulahi sirru juhdi ñalwakal ngeen kii njool kii dëgg doom wasirulahi sirru ruujudi ñal ma ko yàlla leen. loolu la may yàlla yi wutee sama waa ji. woo siralaay sa ruujudi ñal ma ko yàlla leen. loolu la may yàlla yi wutee sama waa ji. وسر الله سر وجودي جل مكال الله وسر الله سر وجودي جل مكال الله أسمان مفك فآدم وسر الله سر وجودي جل مكال الله كم كم جبريل منكو كان لا يوم لا جبريل وسر الله سر وجودي جل مكال الله كو أندل جبريل محمد لا أندل وسر الله سر وجودي جل مكال الله وسر الله سر وجودي abdihi ñëkkaale. ñoom mooy ñëkk nañoo xam yonent bi laataa ñu koy yónni. wa sirru wujuudi njal makkaale. bil ko rasulullahi ci kaw bura. wa sirru laay sirru wujuudi njal makkaale. Adama bu xoolee ci wàllu ndeyjooram jooy. bu xoolee ci wàllu ndeyjooram ree bu xoolee ci wàllu càmmuñam jooy wa sirrullahi sirru wujudihi njalmakayalil ngeen ma ne mu fekk Adama bu xoolee ci wàllu ndeyjooram ree su xoolee ci wàllu càmmuñam jooy wa sirrullahi sirru wujudihi njalmakayalil ah, ngeen ah Adama nag lu waral ñaari xaal yi ngay dund wa sirrullahi sirru wujudihi njalmakayalil ngeen mu ne ko suma xoolee sama wàllu ndeyjoor xool sama sët yi nga xam ne ñoom la yàlla dugal safara lool moo may poussé jooy wasirulaay sir wujudi ñoom alim gën mu ne bu xoolee ci wàllu càmmoñam day gis sët yi nga xam ni ñoom la yàlla dugal ci biir safara lool moo ko poussé ba muy jóg wasirulaay sir wujudi ñoom alim day gis sëtam yi nga xam ni ñoom la yàlla dugal aljanna lool moo koy poussé ba muy jóg wasirulaay sir wujudi ñoom alim gën bika ya laqisani wasirulaay sir wujudi ñoom alim gën bika sukran laka marhaban maa ngi lay yaatal yàlla qisaani yow sama doom ju baax ji wasara laay sir wujudi ñal ma kaay rasulullahi wala rañaan deuxième asamaan wasara laay sir wujudi ñal ma kaay boo demee ci deuxième asamaan Yaxya ak Isa ñu ne ñaari doomu ndey wasara laay sir wujudi ñal ma kaay bu jógee koo fa nag a ñëw ci wujudi ñal ma kaay boo sër wujudi ñel kaay Yuusufa dafa taaru woon ba jigéen bu ko gis rek daf koy topp usru lay sër wujudi ñel ma kaay leen gën ndaw suñu wax sali xaa daal di bar la Yuusuf nañu ma am la baza min sabo ñel ma kaay leen gën woon Muhammad ndaw ne Yuusufa dafa bar la woon ki nga xam ne mooy xasal yi xaar dafa bari la woon Yuusuf alayhi salaam. am na biasa min sa boo ñëw ma kiyaa léegi. maa ngi jégalu ci sabku lisaan bi Zalixa moom moo bari la ci Yuusuf. wa sirru laay sirru wujudi ñëw ma kiyaa léegi. waaw xanaa yeggoon moom moo yar Yuusufa ba mu mag Yuusufa mag Zalixa ne dafa maanaam xelam xelam ci boppam. moo nekk ci Youssouf. wa sirru laay sirru wujuudi ñal makk yaa leen gën. Saliha moo yar Youssouf laa wax ba mu màgg mu ne xelam dafa nekk ci Youssouf. wa sirru laay sirru wujuudi ñal makk yaa leen gën. gën a garaaw Saliha amoon na jëkkër de. wa sirru laay sirru wujuudi ñal makk yaa leen gën. waaye yàlla ngi dogal xel ma nekkatul nag ci jëkkër ja. wa sirru laay sirru wujuudi ñal makk yaa leen gën. xel ma moo ngi ci Youssouf ngir nuurul jamaal bi nga xam ne moo nekk ci kanamu Youssouf. wa sirru laay sirru wujuudi ñal makk yaa sellal ngeen loolu amee Zalixa invité ko ci néegam tëj juróom-ñaari buntu yëpp pour sakku xosara laay sër wujudi njal ma kayaalel ngeen bu mbur ma amee nag maanaam yàlla suñu borom subhanahu wa taala musal Yusuf alayhi xosara laay sër wujudi njal ma kayaalel ngeen Zalixa ne ko man dama laa préparé lii yëpp pour yow la xosara laay sër wujudi njal ma kayaalel ngeen su may misaal daal damay naan Zalixa وسر laa yasir wujudi jalmak yaar Zalixa dafa préparé defaru comme ñu jigéen ñi defar ay maquillage def seen kii yooyu posé xef yëpp Zalixa وسر laa yasir wujudi jalmak yaar def ko nag ngir Yusuf alayhi salaam وسر laa yasir wujudi jalmak yaar ko defee ba noppi woo Yusuf ci biir néegam pour sàkku ko وسر laa yasir wujudi jalmak yaar bu bëggee nag ba jekki Yusuf yàlla suñu borom subhanahu wa taala musal Yusuf يوسف عليه السلام نكو بنت بوم جيب رك yàlla dina ko ubbi ci kattanam. wasirullahi sul wujudi jël wakkayaalin gi. ma ne bu mu ko defee Yuusufa jub buntee buntee di ubbeeku. wasirullahi sul wujudi jël wakkayaalin gi. Yuusufa di daw ci ginnaawam. wasirullahi sul wujudi jël wakkayaalin gi. ma ne Yuusufa moo ngay daw Zalixa waaye Zalixa moo ngi topp ci ginnaawam. wasirullahi sul wujudi jël wakkayaalin gi. yàlla ngi ubbi buntee ci moo ngay daw. makk yaalil wér ba ci buntu bi nag buntu bi kal xoo sër lay sër wujudi ñal makk yaalil wér li tax buntu kal a atte Yuusuf ko seede moom xoo sër lay sër wujudi ñal makk yaalil wér tuuti Zalixa yegg si rek ñoddi mboj mu mu xotteeku xoo sër ñal makk yaalil wér xotteeku ci kanam xotteekuut ci wetu ndeyjoor xetteekuut ci wetu càmmoñ waaye ci ginnaaw la xotte wasirulaay sir wujudi jël makk yaalil gë fekk na nag ngub moomu moo war a atte Yuusuf ak Zalixa wasirulaay sir wujudi jël makk yaalil gë bum xottee ko buntu ba ne kàccet ubbeeku wasirulaay sir wujudi jël makk yaalil gë Yuusufa dem bay dem bugg a mbëkk ki nga xam ne mooy buur bi buur bi nag mooy jëkkëru Zalixa wasirulaay sir wujudi jël makk yaalil gë ah, mbir am na wasirlaay surujudi ñalmakaawiga comme mbir am na nag ndax buur bi bett na leen xam na ne ñaan ñi ci mbir la ñu nekk wasirlaay surujudi ñalmakaawiga nag biñ naan inna kaydakunna azim wasirlaay surujudi ci borom muxtaarul adab mu naan laa ta'manil unsa ausrlay sir wujudi ñalma kaalen g loolu jigéen waaye xanaa jigéen ñi bokk ausrlay sir wujudi ñalma kaalen gën bul wóolu jigéen waaye jigéen ñi bokk ci ausrlay sir wujudi ñalma kaalen gën toog jotaay jotaay rasulullah bokk ci jigéen ñu boni pour sama njort ma ausrlay sir wujudi ñalma kaalen gën ah jig ndaw sa nag profité dem ci buur ba ne ko ah yow loo gis ci ki nga xam ne ni maanaam dafay sàkku sa jabar ban daan nga ko war a teg mu sirlaay sir wujudi jalmakaani moo tax waaja bu mu jógee mu ne dafay jàngi pexem jigéen mu sirlaay sir wujudi jalmakaani maanaam ab pap la nee na dafay jàngi pexem jigéen mu sirlaay sir wujudi jalmakaani gën kay ak big nee na dafay jàngi pexem jigéen mu sirlaay sir wujudi jalmakaani gën bindal ko pexem jigéen bu kay bi fees mu sirlaay sir layslu judi njalmakiyalin gën ah yow foo demoon mu ne ko damaa jàngi woon seen wasiru layslu judi njalmakiyalin gën yow si ne ko mokkal nga mu ne ko waaw wasiru layslu judi njalmakiyalin gën mu ne ko ma xool fi nga ko bind waa ji jox ko wasiru layslu judi njalmakiyalin gën waa ji jox ko mu dugal ko ci teen bi ne ko da ngaa fàtte bi wasiru layslu judi njalmakiyalin وسر الله يسر وجودي جل مكالم غير وانت نتلو اسمان ملي وسر الله يسر وجودي جل مكال غير محمد دو ينت يلا محمد يوسف لا ففك وسر الله يسر وجودي جل مكال غير تريم اسمان ادريس لا ففك وسر الله يسر وجودي جل مكال غير كم اسمان هارون وسر الله يسر وجودي جل مكالم غير اسمان موسى وسر الله يسر وجودي جل مكال غير ndigal sixième asamaan Moussa la fa fekk o siru lay siru wujudi njal makk yaalil ngeen septième asamaan mu fekk fa o siru lay siru wujudi njal makk yaalil ngeen bu mbir ma amee nag ba mbir ma am o la Ibrahima di jàngalee doom yi nga xam ne dañoo faatu te géntuñu o siru lay siru wujudi njal makk yaalil ngeen yàlla Muhammad ñoom wujudi gale gag mën a dund dem. wa sirr laay sirr wujudi. gàllankoor gàllankoor waaye ma ne foofu la Jibril gagee. وسر الله يسر وجودي نمك إلا له مقام ما وسر الله يسر وجودي نمك وسر الله يسر وجودي نمك آه صبتنا أنك صبتم بوفي مكاي باي في وسر الله يسر وجودي نمك جبريل نكو جسنا سمو ويسو في دمي لك جليرو يا ليبوسي وسر الله يسر وجودي نمك يا محمد نكو كون باخنا بايل Muhammadan wasir lay fil wujudi ñaakaalin gën yooyu dañ yonti yàlla Muhammad mu ngay wéy nag jëm ci borom wasir lay fil wujudi ñaakaalin gën bu demee ñu ne am na benn baat bu niroog baatu Aboubacar moom la yàlla doon dalalee xelam wasir lay fil wujudi ñaakaalin gën noonu nag la yegg ci boromam moo di alquran di wax ne summa dana fatadalla fa kaana qaaba qawsayni aw adna wasir lay fil wujudi ñaakaalin gën dem na ba seey ci biir boromam Allah subhanahu wa taala سر لا يسر وجودي جلوك يا لنك وجوك خم خم خم خم شريعته أك خم خم حقيقته وسر لا يسر وجودي جلوك يا لنك رسولك رسول الله سر لا يسر وجودي جلوك يا لنك وسر لا يسر وجودي جلوك يا وجودي جلوك يا aw aduna osuru laay sër wujudi njël makk yaalim gën ko ñaari xam-xam xam-xamu shariatu ak xam-xamu haqiqa osuru laay sër wujudi njël makk yaalim sharia bi laa doon wax de waaye xaaral mu mos tuuti ci haqiqa bi osuru laay sër wujudi njël makk yaalim waaye nag damay mos ngir bañ a lab nag ma osuru laay sër wujudi njël makk gën chamam tabarakallah Mahamad Faye léegi nag moo jëm ci haqiqa nag faro

ki nga jàkkaarloo nga koy wax. waaw eh wa anta us. jeex na gaa yaa xëy xëy dégg nañu ma. yàgg na. rasulullahi. sharia. sharia warul wax rasulullah. sharia Muhammad ibnu Abdullah la war a wax. Mm-hmm. xaqiqa moo war a wax rasulullahi. sharia waxul wax warul wax Ahmad. Mm-hmm. Hmm? warul wax Muhammad Ahmad. Hmm? sharia Muhammad la war a wax xaqiqa wax Ahmad. تقول احمد تي احد لجوجي قل هو الله احد احد لول ندوغل تي مي احمد واو قل مغلون وانت اس وكل الخلق في عدم رسول الله موي فند ما با واي فان لاكو نيك تي عالم الغيب لا نيكون اس وكل خلق في عدم كم من فارغ وانت اس خلن غاي حقيقي وانت اس وكل الخلق في عدم dégg nañ la. kon leer leer rasulullahi ma ne woon bu muy nekk ci faaro bu nekk ah ah léegi ngay dégg. waaw rek ngay dégg de. Maulana Mamadou Diouf. ba leer ga di nekk ci moom nekk ku ci kenn wa anta usun wa kullu xalq fi adal. eh way. ah duma yàgg nag. nuurun maanaam sama ne nuurun leer la. نور نور جيرنا محمد بن عبد الله كوكو عرب له واي نور له وتلك الايام نداولها بين الناس ليتو ديدو من انا كي عرب من انا كي عجب ايغو حديث با العلماء ورثه الانبياء بروم قم قم ني دوندو يونتي آه. دا ني دوندو في الشريعه دوندو لا في حقيقه كون سانغي ني ندي غيس ني نيوم دا ني دوندو نياار ييب تو اي واج يالنا سي بوك مولانا سيما لو انت غبت نبيا يعلم الغيب لن يكون نبي لا رانغون مقام النبي فوف لا مقام حبيب فوف لا مقام حمودية فوف لا مقام صمدية غبت نبيا حبيبا حامدا صمدا آه، ترقى المقامات ترقى المقامات لم تعلم ولم ترد فاروق déggu mu ne tarqal maqaamat lam tuulam walam turami loolu waaw gis nga lam tuulam walam turami doo ko xam ba koy sàkku maqaama yooyu tolluwaay la am na koo xam ne xamut sax luy maarifatu billaahi ba koy sàkku ci bu ko defee foofu la ñuy yemale mbir yi dañuy bañ a lab déggu waxul déggu gars yi tabaarakallaahu booy toog ak sa sëriñ moom da ngay yemale sinon rek maanaam nga dugg ci pax bu ko defee nag ñu ngi jégalu ci kàddu yu baax a gudd na waaye tabaarakallaa pare yéen a ngi ñëw bu ko defee sëñ Maama Ndaw maa ngi noon dañ doon barkelu rek lépp loo xam ne jub na ci ñu xam ne allahu subhanahu wa taala la waaye lépp loo xam ne dëng na ci nag ngeen xam ne suñu ndëngte la waaye nekkul suñu teyeef ngeen jéggal ñu ko rubbama ñu juum ci sharia wala ñu juum ci xaqiqa ndax jiitu ci néeg bu lëndëm moo la mën a wax fi nga mën a toog kon alhamdulilahi rabbil alamin ñu ngi leen di delloo kàddu gi bàyyi lay jàng wa axiru daawaana an rabbil alamin asalaamaaleykum wa rahmatullah